jëwriñ ji nekk ci bopp programme bi nga xam ni moom mooy xeex fii ci réewum Sénégal feebar bi ñuy wax sibiru ñëwoon na ci samedi gi fii ci Touba bas dikk gi nag mooy waxtaane njaal benn yëngute yi nga xam ni warees na koo def ci campagne bi nga xam ni dañ koy xeex sibiru bi noonu yi porte parole xalif général de Mourides dalaloon na docteur Sène ñu ñëwoon fii euh, seet si xalif général des Mourides mais jaarale ko fii ci ki nga xam ne mooy sëñ Bass Abdou Khadre ñu koy sant di ko gërëm ci vraiment accueil bi ñu accueillir mais également pour ñu discuter ak moom wax ko ñan la ñuy xaar ci ñoom ci wàllu xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex si biiru parce que Touba loo fi def lu ne dafa laaj nga jaar ca buntu ba. gannaaw ba mu bàyyeekoo ci waxtaan bi mu amal ak sëriñ Bassirou Abdou Khadre docteur seen mel na ni rafet na njort ci dugal bi nga xam ni kilifa diine yi nekk fii ci Touba dugal nañ ko seen loxo ngir xeex Sibiru. ñun rafet nañ njort ne vraiment engagement bi ñu doon xaar si ñoom yàlla mun na def dinañu ko defal bu baax a baax parce que ñoom suñu engagé rek population Touba yi ak li ko war dina mën a engagé wu. parce que tey campagne bi mu nekk ay doom yi ñuy jox ay xale euh, ñi nga xam ne dañu am ñetti weer. waa fukki at ñoom la ñu war a jox euh, garab yooyu. njëkk boobu Nivaquine lañ daan jox Nivaquine bi dem ba amatul efficacité tey garab bii ñu jël muy Fansidar. muy sulfadoxine pyrimétamine ak amodiaquine moom la ñuy utiliser pour aar xale yi parce que li ñuy wax naan fagaru moo gën faju bu ko xale yi jëlee ñoom dañuy seetlu ne presque kenn du sibiru daaw ñi ko jotoon a jël ñëpp gis nañ ne seen doom kenn amu ci sibiru donc moo taxoon ñu ñëwaat ren pour gën a encourager waat personnel de santé bi parce que jot nañu rencontrer médecin chef de district bi ak équipe am nan la ñu nar a aborder mbir mi nga xam ne ñu ngi ko war a tàmbali ci mois de juillet bi. ngir fàttali programme bi nga xam ni moom mooy yor wàllum xeex sibiru fii ci Sénégal ci kilifteefu ministère gi yor wàllu wér-gu-yaram ak action sociale bëgg na amalaat ci ñetti weer yi ñu jëm programme bii ñu tuddee CPS di ab programme boo xam ni xeex sibiru moo ko tax jóg te jagleel ko xale yi nga xam ni ñooy gën a loru ci bile feebar.